Bonjour, bonsoir, ça dépend de la position du soleil. Avis d'expert avec Midi le décortiqueur. mbokk yi yéen yéen a ko ñu dessin carte mondiale gis ngeen ko li tax ñu dessiné ko nag mooy dafa am lu xew ci réew mi te ñëpp bàyyi ci xel nañ dem seetaan ko buñ paree wax lan moo tax ñu defar lii. parce que bëgg a defar Sénégal li fi yàqu dafa bari Sénégal buñ xamoon li ma yàlla defal ba man kunkaane doomi Sénégal mu jóg xacc ne danaa xar géej gi mbokk yi ñoo ko déggandoo ñoo ko seetaanandoo Kunkande il a dit la vérité ñu bari nañ jàppale du ko xar da koy xar. déedéet ñu mewu ko waay. maa ngi dëggal la sama danaa ko a dit bari nañ jàppale du le décortiqueur midi pile xar bi mu koy xar nak dafa am yoon ndax dañuy waxtaan lu bari ma mom par whatsapp ah na nga ni fi moy amerde amerde ñu bare xamuñu ni amerde du sud mi ngi nii amère du nord sont pas des américains mais sont des amères parce que dañu amerde aduna bi ñom nenañu ñom ñor puissance du monde parce que dañu union <laughs> léegi nak comme lolo tax ñu ne ñom aduna bi donc dañuy amerde waa adduna bi bu ñu fa foofu dañuy def directement fii nga xamante ne mooy ay jus ay jus fii lañ daan defaree jus yëpp koo gis ci adduna bi fii lañ koy defaree comme fii lañuy defaree jus yi moo tax dëkk bi moo tudd ay jus bu ñu jógee dañuy wàcc ci suuf ay sayaan ba tey ñu ngi ci adduna bi génn. yaraw ku naan laalo ay sayaan bu ngeen fàttali ko jamono bu musaana taw ba pare. ndox yi daan des ay séan lañ daan doon tubaab bi ko wax wa mari go parce que mari mo fa demone angal nan ko go man jóge fi, muy mari go, legui <laughs> moo mo nek non buñu jógee ba dañu ñew ci lé au repos au repos ñoom dañuy noppalu rek dina wax au repos moom dañuy rek legui comme dañuy di ñew fi nangga nga xam moy Afrique di fi? jëlé ay fric parce que afrique dafa am ay richesse légui ñom dañuy reposer rek di ñew fi di nax nit ñi di jël seen yeen li ñu liggéey am nañu nak ko ñu wax kunkandé <laughs> mu yoon ñew fi way sama day ci sénégal la dëkk dakar fi la nek soko xolé waye ci dakar fi dafa am fu ñuy wax li tax ñu taamu sumbe jenn ñu bari ñu sumbe jenn sumbe jenn xol ko fi ñu bari xamuñu sumbe boo bokku doon dessiner day nekk <laughs> ci sama waaj bandi sumbe jën mi ngi hein? sumbe jën muy sumbe hein sumbe sumbe li tax sumbe mooy ñu bari xamuñu ne fii la dajale jeen yépp diko jaay parce que buñu ñu sumbal fóot bi moy dajale yere yi te fóot ko sumbe jeen moy dañuy dajale jeen yépp fi diko jox sénégalais li waral ku kunkande taamu fi nga xamantene moy sumbe jeen pour mëna xar geej gi loolu dañ koy leeral parce que ci jamono biñu tollu ni xarum geej gi dafa nekk loo xam ne ñu bari gëmuñu ne dina ko def. dama loo bëgg xar maanaam tey pour defar Sénégal. te avis d'expert daf leen leeral carrément ne xarum géej gi dana ko def ndax fii la war a commencer fii la war a commencer léegi nag fii la war a commencer ñu wax ne léegi dañuy wax ne ñi war a seetaan si fan la ñu war a taxaw dinañ ko wax ñi war a filmer léeg-léeg waa presse fa fan la ñu war a taxaw danañ ko wax autorités yi fi ñu war a taxaw danañ ko wax. loolu yëpp dinañ ko indi ba le 10 ndax émission bi non lay doxé gën ba le 10 inshallah ñu wax féké xar géej gi ndax fa lañ koy agalé ci loolu fi moy océan Atlantique mo jugé fi ñëw ba ci souf Madagascar ñi non parce ñom ay mad lañ doon jaay mo tax ñu lañ wax ay mada les mad Madagascariens parce que madd yi ñoo bari fofu mo wara dugg ni ba ci sud yi boo xoolee dëkk yëpp seen zone sud ño yor ay madd bo xolé senegal sax Casamance mo yor madd yi <laughs> kon loolu na ngeen koy bayyi xel ak avis d'expert dafa ñew pour sen premier numéro pour wax leen ne kande mën na koo xar waxuma de sax na ma laaj nak nan la koy xaree mbok yi avis d'expert loolu leen indil tay ba suba ngeen amaat leneen lo xam mom lañu la ci avis d'expert bi pour xaru geju de merci merci demal ngay rok Superman nonou